novembre e euh, et que ci heure horaire habituelle yi la ñuy reprendre ba tey waaye tamit billet yi euh, dinañ ko jaayee ci lieu habituel yi maanaam ci gare bu Dakar ak fi nga xam ne euh, moo di Ziguinchor à partir du samedi 19 septembre Mouhamed Myriam mmh. kon daal Ziguinchor Dakar dina reprendre le septembre. te acti yenn activités yi tamit mën nañu am yaakaar mu mu tàmbali. ci yoon bi lañ jëm c'est vrai. Mmh. yàlla baax na kon xel mmh. bi. mooy ku kii bi kaa ngi wàññeeku. Mhm. kon war nañoo mën a waat yëpp. te boo xoolee tamit demoon Casamance ak ñëw Dakar dafa métti woon. dafa compliqué compliqué woon. métti métti métti métti kon bu tàmbaliwaat sant mhm. yàlla la. da ngay gis ñu ci am dese sax pour mu mën a dem dafay métti ndax yoon bi taxu ko woon yomb voilà hôpital yi voilà. ayca doy waar ma yàlla baax na comme que activité yaa ngi reprendre mhm. yàlla na fi covid bi gaaw a jeex mhm. ba tey ci euh, bonne nouvelle yi ñu xamal ni que rek démb ci conseil des ministre président Macky moom itam euh, daal dinay décider ni que lii lay di les activités culturelles euh, ñu ngi ci yoonu di ko étudier ndax dénk na kii lay di le ministre concerné à ce que mu daal day lëkkaloog ñi nga xamante ni ñoo di les acteurs culturels pour ñu trouver benn plan boo xam ne dina ko mën a appliquer pour ñu daal di reprendre daal lépp loo xam ne rek activité culturelle la jàpp ne ba tey rek ba tey euh, ni que ñii lay di artistes yi bientôt dinañ mën a yéegaat fi nga xam ne moo di sur scène pour wëyal seen ay concerts yi nga xam ne moo taxoon ñuy am seen ay revenu moomoo Myriam alhamdulilah mhm. xeex nañ ko kaas nañ ko jooy mhm. nañu taxaw nañu fu ne wax mhm. dafa metti woon nag parce six wala sept mois yoo xamee ni géewuloo ci loo xamee ni mooy sa gagne-pain ci nga mën a ci ngay suturloo ci ngay yóbbulee euh, famille beeg mbokk yi donc bu bu a Mm-hmm. yéeg sur scène. tàmbalee bége et puis tamit. dañu leen mm-hmm. bu baax a baax moom mais on espère que ci biir peut-être discours am bi. wax mm-hmm. moom en général. après dafay daal di andi benn amalgame moo fàtte wax lii. donc on espère que souligné na vraiment loolu noonu. ci biir discours surtout. et puis bu ñu commencé waat activité culturelle sax faw ñu respecter mesures barrières. parce que rassemblement lay doon ba tey. pour mucc ci loolu. defe naa ne respecter mesures Bakary mooy mooy gën ci loolu Bakary président. Mhm. ñi ngi étudier cas wu. reprendre les euh, euh, activités culturelles yi mais ñiy def wàllu son. ñiy def wàllu son ñoom bokkuñ ci mooy yéen <laughs> yéen dégg naa da <laughs> yéen. yéen ñi def wàllu son dégg naa da ngeen di xaar <laughs> preneur de son yi. <laughs> bàyyi leen <laughs> yi leen xàmmee. waa bu ñu xoolee rek ñu ñuul de jàpp s'il te plaît maman moo daan wax Anta. waaw dimbali ñu rek dimbali ñu rek dañ la ñaan rek Bakary xam nga li ngay def ñu ñu naan ndeke kon ñi mel ñu nii. ah yow kan jàpp yow kan jàpp waa gënal yokk Bakary jubali ñu. mu xam ne ah? ba nga dooree jóge waalo nii nga meloon nag. dégg nga wuyu ah xam nga ni genre melul nii de Bakary dellu si ci man ma xool ah nii laa mel. <laughs> maman Gagne Sëriñ moo daan wax Anta euh, Jaaf. <laughs> maman Gagne Sëriñ dama jóge yaay fi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom et puis di ko ni ko namm nañ ko namm nañ ko lool lool lool ay tëjaat ñu pour ñu poursuivre. voilà. voilà ñu waxtaanee itam li nga xamante ne moo di déplacement wu président Macky ci zone yi nga xam ne euh, dafa daal di ci taw bi nga xam ne def na 10 jours et que dafa daal di affecté zone yi nga xam ne bokk na ci euh, Kër Massar tey nag xëy na daal di dem fi nga xam ne euh, moo di Kër Massar pour mastawu leen waaye tamit daal di annoncé yi dina def Kër Massar benn département donc Kër Massar dina nekk cinquième département bu la région de Dakar ñi ne que bokk na ci dëkk yi nga xam ne moo gën affecté ci li nga xam ne moo di taw bu métti bii lee euh, Momo Myriam. ah doy na waar de. en tout cas def département Kër Massar. de commune à département ah. ma ne de commune de commune de commune à def département Kër Massar neex na waaye. Mhm. Euh, jéem a éviter tamit nawet wii di ñëw. Mhm. mën na mi euh, amaat fii wala defaat fi dégâts bu mhm. mel nii. def naa ne loolu la ñu la ñu. moo ëpp solo ah? waaw def département sax du problème waaye li li askan wi gën a soxla mooy ndox mi jóge fi waaw ñu ñu delluwaat ci dundin gi ñu xamoon. te moom bi mu fa demee sax gis na ni que population bi kontaan ndax ñu ngi ko doon yuuxoo bu baax a baax. mi ngi noonu mi ngi noonu. parce que def ko département ko tane. <laughs> wax na dëgg département des eaux. mu niiw. pour ce temps pour dindi ndox bi parce que ñu ngi ñu ngi temps bi mi ngi gën di dem ndox bi mi ngi gën a verte di gën a salté te taxul ñu dindi ko man loolu mooy sama problème. ñu ngi ci plan d'urgence boobu. mënuñ mhm. mais. dafa yàgg. dafa yàgg dafa yàgg. plan ORSEC bi duñ ko annoncé ba tey. mooy suñu problème ñun mhm. ñii tam. point d'interrogation boobu dañ fay bàyyi ndox bi muy taw. ndox bi di gën a bariwaat. donc kañ lay dañ ñoom. kañ lay dañ si saa de bugaan dem ngi pompe lu mu mën moom. <laughs> lu mu mën mi ngi koy pompe. Mhm. di wàññeeku fële ca Saint-Louis bu baax a baax. Mhm. foofu yëpp ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci liggéey bi. Mhm. loolu daal la ñu gën a soxla moom nu ndox mi demee. waaw waaw. voilà bu ñu jógee ci coowal mën bi dañuy daal di dem ba fi nga xam ne moo di Sédhiou euh, ci mairie boobu nekkee ca Wandi fii ñu daal di fay fekk nga xam ne moo di ML Fati moom nag nekk adjoint au maire ci boobu les mairie dañ ko toppee nag moo di euh, trafic d'extrait de naissance bi ñu koy jàpp nag fekkee nañ ko ak 12 extrait Mohamed mu nekk koo xam ne daf cee nekk lu yàgg yàgg ay mi ngi def ay trafic yu euh, bëree bëri di loolu ay doomu aadama moom nag dañ koo jàppeek benn ndaw soo xamante ne elle a 25 ans bëggoon a fekk jëkkëram koy defal li nga xam ne moo di pièce d'identité ndaw si nag ab guinéen la ñu xamal ne que ci commissariat bu Grand Yoff la kii lee di M El Fati doon defee yooyu lay ñaawteef mi ah, de naissance. waaw oh, yooyu dafa bëri mhm. ay carte grise permis. Euh, ay jamono jàppoon na ñoo xam ne dañ doon def. autorisation yi ci ci jamono yi couvre-feu bi. couvre-feu bi. Mhm. ay tri ay triant lañu yoo xam ni mm-hmm. euh, euh, cachet bi ñoom ñoom ñoom ñoo ko mën a lijjanti signature yi ñoo ko mën a lijjanti mm-hmm. te heure bu bu waay daanoo rek mm-hmm. maanaam ca ca ca benn bureau lay liggéeyee wala ci benn société lay liggéeye te fañ koy defaree souvent fa lay liggéeye moo def lu bett kenn waaye tamit voilà euh, xaal gisoo woon ne tamit ne système boobu tamit dañ ko war a xoolaat bu baax baax parce que tout le temps tamit dañuy gis ne façon yi procédure yi dafay yàgg torop torop torop des fois nga nekk bu taxaw wala benn extrait tolloo ba finalement sax tu es obligé jaar ci ñi nga xamante ni peut-être ñoo lay naan boo ma joxee temps ma defal la temps. donc loolu di. <laughs> walaay walaay dafa diwaan attestation. <laughs> xam nga am nga problème moom. daa sa soxla. <laughs> ñun bi ñu tardé bari bari moom mooy tey jii nii. war ngaa mën a dëkk Sédhiou. Mhm. ñëw ci benn maire bu Dakar. Mhm. defee fa sa sa sa extrait dafa demande extrait de mhm. mooy mais banque de yooyu moo amul moom moo amul fii Sénégal. c'est-à-dire la jàppee mën ngaa yow mën ngaa am kayitu juddu boo xam ne mhm. mën nga say dem defari carte d'identité mhm, ans après ci la mhm. soog nga bëgg a defaat carte d'identité ci ngay soog xam ne extrait boobu luñ euh, koy waxati baaxul mooy boo delluwaatee ca maire yi ba nga ko amee mooy doo doo nekk ci euh, euh, merci beaucoup numéro bi kenn du ko am da ngay wër ba sonn ñu la non bii baaxul deux personnes deux personnes c'est-à-dire que buñ ci loolu dafa bëri am na ñoo xam ne ñoo ngee carte boo xam ne extrait bi ñu amee carte d'identité ko amaat créé bopp euh, bari na daal. bari na vacances yi bari na ci loolu. ñi ci ñi ciy am ay problème aussi bokk na ci élèves yi nga xam ne dañuy def bac ou BFM dem di wut ay mm-hmm. papier dañuy am xool man j'ai eu problème là. j'ai eu dem di wut ah. ay papier mm-hmm. j'ai hmm? <laughs> nag bu dañu yow pour euh, pour sa cas day comble parce que yow Guinée yow nga yow Guinée nga juddoo yow faw ñu delloo la Guinée mais baax na tamit ci euh, parfois nga toog dem ci mairie yi. wala fi fi fi fi nit ki juddoo. Mhm. pour wuti extrait. Mhm. même boo ko doyewul dara parce que dañu koy faral di mise à jour. Mhm. souvent nga dem sax fekk euh, nekkatul ci registre ba. wala mu souvent nga dem fekk nekkatu donc dem souvent di ko wuti xool ba xam ñi ngi koy toppatoo. wala ba xam ñi ngi koy topp wala un an bu ne nga dem. essayer xool loolu loolu lu baax la c'est vrai. Mm. parents yi tamit est ce tamit sonal nañu trois mois bu dee génne ñaata mois dafa gàtt. jinne ñaata at la oh, ma nag xam mais 3 mois yi baax na lay kii. dafa gàtt de. parce que dina tax dina tax buñ la boo yore këyit bu baax di ko xam boo yorul bu baax. di nga ko xam voilà. Hmm. ban Guinée la ngay laaj sa mbokku Guinée ban la. nuyul sa mbokku waaw ah, ban Guinée la. santal santal bugaan. parce que yoroon na la fekk Guinée ngay jaay banaana. bara bara wala kaju kaju. bara waaw man bara nii bara <laughs> voilà <laughs> euh, su ko defee suñu jógee ci boobu Mouhamed di euh. trafic d'extrait de naissance. Euh, dañu daal di waxtaanee li nga xam ne moo di émigration clandestine nañu yaakaar ni rek ba tey. daf fee gën a am tonk ndax démb la ñu daal di jàpp 73 personnes yi nga xam ne dañoo jógee ci Fimela di dem fi nga xam ne moo di Espagne naka noonee ci 73 personnes. personnes yooyu 72 yi ay benn bi nekk ab gambien ci 72 sénégalais itam euh, amoon na sept femmes sénégalaises yi nga xam ne kenn ki dafa àndoon ak bébéem bu am deux ans mu mel ni que rek moom dafa bëggoon sacrifier ki nga xamante ne moo di ab doomam ci boobulee euh, émigration clandestine ñoom nag euh, teg nañ leen doxo ba actuellement ñu ngi ci gendarmerie bu Fimela ak boobulee gambien aussi ñoom nag ñuy fàttali ba tey rek ñi qui sont âgés entre 18 et 25 ans donc ay xale ndaw lañ conscient wuñ sax ci li ñuy def conscient wuñ sax faat ci li ñuy bébé sont des bébés sax. lii rek mœurs la. kooku moom kooku kay. te xale bu am deux ans. Mhm. beneen bi tamit euh, moom mooy ci beneen boo ko jàngtee mooy réew mu la réew mu la. xale yi di génn di di di def clandestin réew jàppal ni yaakaar a nga fay tas. réew mi metti waaw réew moo gis ni xale yaa ngi ëpp di génn. di génn réew mi di daw jàppal ne yaakaaru xale yooyu moo ngi moo ngi tas. Mm-hmm. Euh, vraiment tamit euh, diggaluñu kenn tamit muy jaar ci géej gi. Mm-hmm. jaaral voie normale lu ci gën a am. surtout doom joo xam ne doom ji ndaw la géej amul bànkaas. nga bëgg faa jaar yow sa doom bu rëccee nag. maa la day taal kooku dañ ko war a dóor tegal teg ko. doy na mhm. ci ponk bu mujj bi lay doon Mouhamed ñuy fàttali ni que bac bu 2020 bi mu weesoo yàggul waaye tamit jàppoon nañ ci 15 candidats yi nga xam ne dañ leen fekkoon ñuy tricher ci benn groupe whatsapp naka noonu lañ leen daal day arrêté démb nag daal dinañ leen di àtte ils sont reconnus coupables d' association de malfaiteurs et fraude ci examen boobu ñu naan baccalauréat ñoom naka daal dinañ leen di tëj lu toll ci 6 mois d' emprisonnement assorti de sursis dinañ délibérer le 30 septembre prochain incha allah. 15 candidats. Euh, ça leur servira de leçon. ñu doon tricher ci bac bi. xam nga ni sax dañoo am chance nag booy xool parce que mm-hmm. bac avant. Euh, buñ la jàppoon cinq ans ngay toog cinq ans la woon. Mhm. cinq ans ah ah la woon. ah waaw ah waaw kon loolu délit la triche délit la. ah da nga doon ah, yàgg naa triche <laughs> moo tax mu tiit. <laughs> waaw moo tax mu tiit. foo nga ma yaat ma lii nag parce que Amidjana Amidjana <laughs> lii defe naa ni. Amidjana Ndoye nga bu nga xamee woon sa jamono yi ñuy jàng. du nga ni la nga ni yàgg nga. maa yàgg triche. Amidjana foo jàngee. foo jàngee. bari na nag. <laughs> xam naa tricherie tax ñu lay dàq rek. ku neex a ngi ku neex a ngi nii. lim. Eh? ma limal waaw limal. jàngee naa Madiaye Sall. Madiaye Sall hmm? jàngee naa Salja. Eh. daan jàngee naa Yoff jàngee naa Adama Ndiaye. Hmm? jàngee fan. Blaise Diagne moom école Beuz la doon wër di fa jàng. école yi Beuz akapes jàng nga fa ak Dior ak Dior huit a ngi nii. école Beuz yàlla baax na yow fu nekk un an nga fay defana. déedéet am na yoo xam ne dafa da koo defal. ma triché ñu dàq ma kay ngay wax. ah da nga doon triché ñu dàq la. ak ak ak ak modifié euh, bulletin bi. de la rue daal ma triché. mu ñoon xamal nga parent de la rue. ah <laughs> mu ñoon xamul parent de la rue de. <laughs> parents de la rue. yal na ma ci yàlla musal. <laughs> doy na waar ami jëlaat bi. <laughs> jàngi heure wàcc heure dem ñibbi def samay devoir. meilleur élève exemplaire. amee temps yi ñu waroon na def temps bi ñu waroon na def pour jàng dañ koo def temps photo wu. billaay ndeysaan waaw photographie nag dañ doon ñëw ci buntu école yi. di woo xale di leen photo. photographie itam yàq nañ jàng yu bëri. dañ leen simple parce que ay smartphone lañ leen. teel a def élèves yi ay la ma daloon ci bag ba. Hmm. ma génn waa ji ni ma bag yomb na. ma ko lu tax mu yomb mu ne ma non duñ la duñ la duñ la épreuve yi eh. la jox loo jàngul <laughs> bag yomb na duñ la jox loo jàngul man ko wax nga dëgg de xam naa ci dara <laughs> dëgg la duñ la jox loo jàngul walaay duñ la jox loo jàngul ayca <laughs> euh, loolu moo nekkoon ponk bu mujj bi waaw moo nekkoon ponk bu mujj bi mu xamante ci ah. information du jour yi ayca jërëjëf kontaan nañu ci info yi ñu ñu ñu xaarandi suba ci info yi mujj ci semaine bi. Hmm. incha allah am na nu muy demee sax yëpp ci kanam bu yeneen génnee rek ñu sotti ko. déedéet <laughs> loolu moom <laughs> léegi bu amee yu génne dañ koy partage am benn problème. ok kon ñu koy xaar ci kanam tuuti <laughs> Myriam. nañu xooli suñu bonne adresse du jour. waaw tey ko bëgg ñu ànd ci sax. nañ dem sant yàlla boutique. sant yàlla boutique waaw. ñoom ñi nga xam ne ñoo la génn fii. waaw daf ñuy solal nag moom nag plateau yëpp lay solal. tissu bi c'est agréable. dafa léger non c'est très doux. dafa léger c'est très doux. c'est doux de. c'est doux. Hmm. c'est doux de. Ah, c'est très doux. sant yàlla boutique la sant yàlla. Jeanne la waaw. man de sant yàlla solo nii. loolu nga bëgg sant yàlla kay laxasaay bàyyi ko foofu yàlla boutique solal la. waaw dañ lay solal. def ko caay comme sa ah, kon nañ dem àndak ak waa sant yàlla boutique <laughs> euh, aada euh, fële ca Touba sant yàlla boutique bi nekk Touba ca wetu marché Ocass nañ dem ànd ak ñoom ci bonne adresse du jour te ñëwaat léegi léegi ci plateau bi. Franck Dieng Balik yaa yaa yaa yaa. salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax ni yéen a ngi sant yàlla boutique Touba Maysa et frère. sant yàlla boutique moom euh, dootuñ ko présenté ti kenn ci réew mi ndax daanaka lépp lu ñuy def rek nit ñi teg nañ ci seen bët. ay tissus de cérémonie dañ koy am ay Getzner waa ay ay brodé autriche ay brodé yu raar sax yoo xam ne boobu boo ñëwee fii xam nga ni nga ko di nga ko am ci anam bu bu rafet njëgge aussi dina xéwale nekkal nañ fi jigéen nekkal fi góor ñi surtout góor ñi ay tissu coton yu rafet yoo xam ne pour mara yi ku fi ñëw moom yaakaar naa ne di nga bëgg ba ci jeesner yi am nañ ay jeesner original yoo xam ne moom couleur boo bëgg am naa ko ba ci fil à fil coton yi fil à fil jeesner yi fil à fil Sadio Mané yi tissu yu raar yoo xam ne daal ku ñëw fii di nga ko am ci prix bu xéewale bëgg nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan tele bi ngeen xam ni sant yàlla boutique ñëpp la fi nekkal ñi nga xam ne dañuy yëngu di jaayaat ñu ñu ngi ak yéen ñi nga xam ne dañuy jënd pour sol ñu ngi ak yéen ñi nga xam ne dañ doon jugee dak euh, Touba di dem ba dakaar xam nga di jël ay alo dakaar wala di xat loon ci biche yeeg yooyu yëpp c'est pas l'appel jaratu ko ndax sant yàlla boutique tu xew yoo xam ne doo ko gis sax dakaar moo ngi fii pour wax la ne leen jaratul ngeen di paas di dem ba Dakar di ñëw foofu di jënd ay tissus parce que loolu lañ leen yombalal ba indi leen bërëb bi fii adresse bi euh, mu ngi nekkee marché Ocass côté poste contrôle bi mooy boo ñëwee ba ci post contrôle bi nekkee buntu kër sëñ Mahmadan boo ñëwee ba foofu nga nga nga laajte sant yàlla boutique wala sax nga woote ñu ñu jël si la numéro 77 935 73 47 ku ci woote dinañ la mën a jël si ba fii wala nga woote ci 77 906 28 95 wala ba tey nga mën nga woote ci 78 383 64 30 d'accord jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nag. ndeysaan ndeysaan may emoo ñu may saaga si net ma yeeru ñu bëgg ma naam bëggoo ma bu lii sama snap ndaxte lu ma neex laay def lu ma neex laay def solo classe ba nice frank ala <laughs> bakki euh, deux mille dindi naa ko sax fu mu ni nii sept cent laa koy tegal nga ne ma sept cent franc wàññi nga mille deux cent wàññi naa mille ñaata mille trois cent sept cent ah. laa ko kii mais sant yàlla bu dee gis nga seen tissu yi de lii amul fenn ci àddina ah. yooyu xeetu perle yooyu xeetu euh, jesner macha allah non c'est c'est c'est trop maa la wax ban moo ci organza bi sax. organza bi est-ce que du moom moo tege ne. Ah, du moom ci kaw waaw. mais ñoo yow sa mariage sax ñoom ñoo la jaayoon sa waaw waaw sama mariage ñoo ma hmm. gis nga tuuti ma soloon moom aussi ah, ñu naan ma ndax jamaa la wala ndax lan la. Hmm. Hmm? ñoo ko jaayoon. man mii sama mariage sama tissu ñoo ma ko jox. dëggantaan maa la mën nag. dañoo mën mooy marié <laughs> ngi noonu sant yàlla boutique. Euh, tissu yaa ngi donc xeetu tissu bu ngeen bëgg bu ngeen demee foofu ci sant yàlla boutique <laughs> da ngeen ko fay mën a donc brodé yaa ngi fa la fil yaa ngi fa euh, jesner yaa ngi fa xeetu tissu bu ngeen bëgg bu ngeen demee foofu ci euh, sant yàlla boutique bu Touba. Uh-huh. nekk ci Touba marché Ocas bu ngeen fa demee di ko fa am et puis fa fekk itamit aada donc aada la ak Maysa Maysa ngi fii ci Colobane aada nga fële ca Touba donc moom bu ngeen bu ngeen ko fa fekkee mu dalal leen et puis euh, yombalal leen tuuti te li ci gën a neex mooy bu dee da ngeen bëgg euh, tissu bu ngeen sol bu ngeen demee jënd bu fekkee itamit da bëgg tissu yoo xam ne da ngeen koy jënd pour jaayaat mooy revendeur yi ah. euh, bu ngeen demee tamit ñoom ñu gën leen ko yombalal donc dañ fi nekk pour ñëpp sant yàlla boutique numéro 935 73 47 sant yàlla boutique bu Touba aada ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. waaye équipe rendez-vous tamit ñu ngi xaar seen ay. waaw caay caay. foofu ñu defaat ay laxasaay. man moom ci perlage sax nag laa. Ah, perlage nga bëgg wala jees moom naa am may luus rek may luus tous boobu dafa ma neex dafa nooy. may hmm. am nañ ko Mayloobs waaw ah, Mayloobs mm. te tissu bu oyof la. Mm-hmm. tissu bu léger la et puis ci tàngoor bi sax ci dafa doon ci neex. Mm-hmm. Ah, donc mi ngi noonu et puis yi tamit ñoom mën nañu mm-hmm. jege suñu service commercial. Euh, bu ko defee ñu mën a bokk ci rubrique bii di la bonne gu jot muy euh, dugg ci émission bi lee di rendez-vous bu ko defee yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen fësal seeni ay njaay moo xam accessoire moo xam euh, dal yi moo xam tissu ba tey moo xam tailleur yi donc mun ngeen euh, jege suñu service commercial boo ko defee ñu jagleel leen pàcc bi ñu leen jagleel muy la bonne adresse du jour ngeen mën a fësal yëf yi fii léegi 18 safar gi di jege si ndax mooy suñu yitte Aïcha ay Aïcha dañuy daal di poursuivre ginnaaw bi ñu leen remercier bu baax a baax waa sant daal di ànd ak Fall Ndiaga Yaram ci wàllu mars muy waxtaanee lu am solo tey nag dañuy daal di ñëw rek ci euh, mariage bi nga xamante ne rek dafa daal di avorté c'est tout de suite. Aïcha mariage bu avorté na nekk loo xamante ni yéem na lool Fall Ndiaga. Mhm. jërëjëf donc lay déglu bu baax a baax. maa ngi leen di nuyuwaat bu baax di mhm. nuyu askanu Sénégal encore mhm. une fois euh, lii nag moo ngi xewee Médina euh, moomu. xale bu jigéen bi dañ koo jox premier cadeau. premier cadeau premier cadeau. mariage bi ñu jàppoon ko démb. jàppoon nañu aw date tamit. jàppoon nañu ab date. Mhm. bi ñu jàppee date beeg def nañu lépp. Mhm. ba ñu may ko njëkkee. ci mariage bi. parce que waree takk jabar nga naan diw laa may premier njëkkee. mais ñu ba tey mayeegu. Mhm. yàlla def gorobee ko woo xale bu jigéen bi. mooy mooy mooy goro goro goro. Euh, xale yu góor yi yu yaayu xale bu góor bi moo woo xale bu jigéen bi. Mm-hmm. ni ko sa première njëkkee dalaa jox dafa nekk extérieur may la cinq cent mille. nga ni wax uh-huh. mais da ko war a jël si. Mm-hmm. mu ne ko ñun suñu aada. Mm-hmm. baaxewul. ñu jëli. maanaam ñu nekk ci wàllu préparation mariage suñ di dem ci ñu kër goro. te takk takk amagul. xam am na ñu ko xam ne. seen aada mayu goro bi forcé ko am na question bu ci nekk nag dinaa leen ko laaj. Mhm. bi ko goro bi forcé ni ko man maay sa yaayu jëkkër. est-ce que naturel na loolu. forcé ko ni ko 500000 yaa koy jël si mu ni ko léegi man maa ngi woo sama jëkkër. mu jël si ko mu ne ko waxuma sa jëkkër yow na ko ñëw jël si. Mhm. loolu baax naturel na. mu woo xale bu jëkkër ji fi mu koy woowee pour mu négocier loolu. Mhm. dugg boîte vocale. mu woo yaay ji ni ko maa ngi woo sax diw. moom moo mais boobu ba léegi. jotuma ko mu ne ko ñun tamit ñoo ngi koy woo jotuñu ko. bi mu ko forcé nag ci kilifteef. ak ku bëgg a sëy ak respect bi mu départ këram gi ñëw. bi ñëwee ba ci buntu kër gi fekk fa oto jëkkër ji ci buntu kër gi. am na lu mu fa am na lu mu fa xew de. mu ni waaw diw oto ma ngi nii ñu ne ñu dugg laaj goro bi. ak waa kër gi ñu ne gisuñu ko. am na lu fa xew de baa tëjuwul. ci la geestu nag yem buntu néegu jëkkër ji moo ngi ubbeeku. mu dëggu mu dugg bi mu dugg nag moo ngi fekk jëkkër ji fekk fa ak beneen xale bu jigéen ñuy njool ak ñuy hmm. a gàtt enterrement vie de jeune garçon ñuy lan jaaloo ñuy njool ak a gàtt enterrement de jeune garçon nekk ci leen neex hmm. xale bi am mbetteel ñibbi hmm. mariage ba avorté na dafa leer mais li ci gën a yéeme mooy démb xale ba mu doon sa yël ca biir néeg ba démb lañ ko takk. koo takk waaj waajee ko takk. ñaw karma léegi kan moo yàq sëy woowu question la. maire bi. Hmm. Uh-huh. ah xanaa goro bi. maire bi ko yàq. Hmm? xanaa goro bi. goro bee yàq sëy bi de. goro bee yàq sëy bi de. léegi nag nit ñi dañoo wax ni question bi yëpp démb ba léegi waxtaan wi mooy. ndax sëy 500000 yi dëgg na dëgg la wala du dëgg. du dëgg mais bi ndax waaw. dafa bëggoon xale bi ñëw gis. prétexte la woon rek pour xale bi ñëw. mais est-ce que tamit. bëggul woon protéger xale bu jigéen bi tamit. protéger xale bu jigéen question la. ku nekk nag xale bu jigéen bi tamit parce que mun na comme moom dem na ba takk kële munoon mhm. na ni kee la bëgg ki mu takk euh, nee la bëgg ki mu nekkal ki mu nekkaloon moom la bëgg est-ce que mère bi pour protéger keneen ki ñëwul parce que bu ñëw bu ko néewoon sama doom day def li ak lii mun na ni kon kii bugg wala dafa bëgg tas see bi mhm. est-ce que bugg ko euh, nu mu tudd euh, mu fekkee ba mu leer ci ay bëtam pour mu mën a comprendre waaw man tey Pape Ndiaga li ma li ma li ma ciy wax. Euh, mooy xam nga euh, yaay ak doom. li ñuy wax dañoo jegeyantoo lool. Mm-hmm. des fois xalaat baa ngi jëm kaw lool. des fois nga nekk ci loo xam ne nii sax. sa yaay da koy xam sa téléphone bi na sa yaay da koy xam waaye dala koy nëbbale. Mm-hmm. moo tax lii mu demee nii dama jàpp ni mën na nekk sax combine boo xam ne nii. te yaay ji ak doom ji ñoom ñëpp seen loxo mu ngi ci biir. Mm-hmm. waaw parce que des fois nag nga joxe bopp ba pare dem ba ci biir. tànk war dikk wala nga am beneen beneen beneen position te xamoo nan nga koy waxee ndaw si wala naka ngay def pour duñ la yàpp mm-hmm. donc moo tax ma jàpp ni yaay ji ak doom ji seen loxo mi ngi ci biir. man Fall dama jàpp ni peut-être ñëpp peut-être. Mm-hmm. mooy ki nga xamante ni mooy ndaw si ak ki ko waroon takk ñoom ñaar ñëpp ils sont victimes de de bi. est-ce que aussi tamit maire bi xabtalul doomam sax nag. Mm-hmm. ba tey doomam nekk di sëy ak keneen ba kële war cee mën a ñëw teg ci euh, bëtam. man sama jàngat ci loolu. métti na de. sa xalaat genre. ah man sa xalaat la li ma wax rek loolu la mère bi dafa woo xale bu jigéen pour mu gisal de ses propres yeux loolu la rek. dans quel dans quel but dans quel but. Ah, c'est-à-dire dans le but de lui montrer peut-être que le garçon ki mu nekkal la bëgg mais pas moom mais la question qui se qui se pose derrière ma réponse est lan moo tax alors mu bëgg a marié wu euh, xale bu jigéen beneen bi. c'est ça ma question. si toutefois ki mu nekkaloon la bëgg. cas bi critique na de. torop man damaa fay en fait. da nga fay de. parce que man tàq na. ñun duñu yaay yi bokk wala yéen seen yaay yi bokk duñu nangu moomoo ngay entre jigéen sa sa sa sa sa sa saal sax sa biir néeg ba leneen di fa di fa am ba yow mi nga doon yow mi mu doon jëloon naan ma kaay fekkoo sax déjà buntu néeg bi tëju yaa ngi fekk buntu néeg bi ubbeeku sa yaay nekk fa boo matul aussi papa ji mi fa en ñu xam ne que seen doom mi ngi ci biir néeg di njaaloo ñoom ñu toog à l'aise Hmm. ci jamono yi. ci jamono loolu fees na de. suwaat ah, jàpp ñoom ñoom yaayu xale bu góor bi. kooba la mais kooba la non nañu waxante dëgg. jàpp ne que maire bi maire kooba la mooy maire yooyu nga xam ne dara safu leen ci àdduna. wax dina de wax <laughs> sëyul ak papa papa xale bi. day euh, comment on appelle xale bu jigéen bi nekkoon si néeg ba di lëkkaloo mu nekk une femme boo xam ne c'est une di bu yor xaalis boo moytu sax moo leen yoraale. genre joxe woon nañ fee seen kàddu euh, xamatul nu muy def mu ne ko indi ko ci biir kër gi ma wookee ñu teg ko dil mu ñëw li ma wax nga wax xam naa li ñu dend tax nag ah! voilà maa bëri na ay angle yoo xam ne. nit ku nekk yow moom euh, Safia Diatta <laughs> bëgg naa gis-gis. Ah. nga àddil ma ci Anta Mbaye Anta mbay bi nga xam xunja kumba mii. <laughs> sama xarit mii Anta mbay mii dimbali ma rek dama la ko ñaan kii ñu détaché ko. Euh, rendez-vous bi Sabili laay dañ la ko ñaan nga yóbbal ñu ko gis-gis. yow sa loolu benn benn parent du ko nangu non non c'est vrai loolu benn parent du ko nangu. c'est vrai nga ñëw dafa yomb quoi ñëw naa ubbi naa sa néeg ba moo fekk la nga nekk ak beneen jigéen après. yomb na affaire yi jeex dafa yomb. torop moo daal ah Fall cas bi critique na de. dafa critique c'est-à-dire que. dafa bëri ay angle mhm. Mhm. angle boo ci analyser ba defee ni bii la bi keneen joxe joxee xalaat mais yow topp nga kaa bi day ubbeeku waat problème à une équation la mais problème bi moom mooy xale bu jigéen bi yaay ji moo bëgguloon mu sëy ak doomam waaw c'est kaa ah, bi loolu la quoi kaa bi loolu la ah, yaay ji moo bëggul woon mu sëy woon mu sëy ak doom doom bi ok. xale bu xoolal ñu ma joxee information bi. Mhm. deux heures de temps avant ñu may jox information bi xale bu jigéen woo na ma ni ma man bi may sëy sama yaay dafa laaj sama jëkkër ni ko ndax sa yaay bëgg na nangu na mu ne ko sama yaay nangu na fekk yaay ji nangu. Hmm? nee na bi ma sëy see yaay jee a génn kër gi. mais nag est-ce que tamit nag yaay ji yaay yi nag ñu ba sama yaay lañ nag wax dëgg yàlla waaye faw ñu waxtaan ak ñoom faw ñoom ñu xam ne tamit ñoom sëyuñu. goro yi sonal nañ xale yi problème mooy gone yee sëy tamit. beneen bi mooy lu tax xale bu jigéen bu góor bi di ñu ni suba la mariage am ginnaaw suba. xale bu góor bi tamit xale bu jigéen. waaw yéemul kenn man boog yéemul. yaay ji loxo bi wallaay bëri na ñoo xam ne seen jouru mariage. dañuy tëj saison bi. seen jouru mariage ñoo ngi toog ak seen benn ex di def alobar. en terme de jeune garçon. merci beaucoup cest ma. dëgg que nit ku nekk maanaam sëy bi. bu ko gisul woon maanaam bu si tegul woon bëtam. Ah. sëy bi mën naa mm-hmm. parce mm-hmm. que bëri na tey xale yu góor yoo xam ni. heure bi leen di mayee. ñuy noos ñoo nga toog ak seen benn ex. fa la ñu yendu añ ba sax añ bi ñuy añ ak bi ñuy añ moo ngi jóge ci seen kër. Mm-hmm. ci añ baa ngi jóge ci mariage ba. ñu ñu yab ko seen benn copain. yab ko andil ko seen benn ex mu koy dalal. te ex bi sax des fois sax du xam ne sax kii mi ngi ci yoonu takk jabar côté boobu. Mhm. côté boobu yéemul yéemul doomu aadama mhm. mais lan moo waral maire bi. c'est-à-dire que loo nanguwul ba première cadeau dem. loo nanguwul ba ñu naan suba da bañ jàpp dab cest que rafet ki da cee gën. mais damay conseillé xale bu jigéen bi daa parce que. bala nga mhm. ñu tëjal la say bunt boo duggoon àdduna tukki. mu doon loo xam ne tamit euh, dinañ ko yeggale. suba incha allah. ca Kawtef. ah Fall de waaw kay yëgal ko maar bi fii rek. <laughs> non damaa bëgg gars yi déglu Kawtef ci rajo bi. <laughs> Kawtef Kawtef joxal heure yi sax. waaw Kawtef moo ngi tàmbali 22h. Uh-huh. ba 1h du matin. chaque jour chaque jour. Uh-huh. non vent tous les vendredis. tous les vendredis tous les vendredis 22 uh-huh. yi ñuy làq ci télé bi yëpp foofu moom dañ koy joxe parce que parfois. dañuy jël ñaan ñaam histoire. ñu duggandoo ci émission bi. mu doon benn débat. ca kawteef ca kawteef ca rajo ca rajo ba nag damay bañ gars yi di ko wër ci télé bi 89.7 voilà di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp koo xam moom ñu doon seetaan mais way juri nag bu bu seen doom yi bëggantee mhm. nga la waaye bàyyi leen ñu sëy ah naa loolu moom euh, c'est minimum mooy suñu temu ajuma mhm. maire yi tas sëy sëyu doom yi ah, waaw mooy thème bi allah ñu ngi koy xaarandi kon kaa bi daal xam naa ne critique na ami janaa wax na ci lu ne <laughs> yooyu metti du bàyyi kaar nag gis nga boo ko toppee. Mhm. fii ba 19 dina la laaj. waaw waaw moom moom waa ji lu ma soloon. ko fay fekk wala mu dem ba këram wala mu ba këram la wax ma rek bi fan la. moom day dem ma rek li mu demee da koy laajte moom. waaw wax ma rek wax ma man ko non wax naa ko moom mu ne ma non moo du ma ko wax ma ko rek <laughs> wax ma ni mu demee rek. <laughs> ayca jërëjëf Fall Diaga kontaan nañu bu baax a baax ci kaay comme euh, ni mu koy defee mardi bu jot ak jeudi bu jot mhm. ci émission bu le rendez-vous donc daf ñuy andil mœurs yi nga xamee ni mhm. moo gën a doy waar bu defee ñu ni tamit ñu euh, traité ko fii ci plateau bu le rendez-vous Myriam bi metti na de metti na torop bi